bena bi, Gusunguru bena bana, Gusunguru bena so. doon xalaat euh, demain ñu ñu dem ñu dem xool billet yi euh, xool ba xam ban jour la ñuy dem. voyage boobu sax man bu ma am ma gën dañ koy annulé. non looy wax nii comment ça. bébé sama yaay. oui. ak Tata May. jàppante nañ fi jàppante bu metti lu xew. moom daal affaire de Boubacar moom problème yëpp affaire de bubakar la Boubacar mii ñëw di seet si sama yaay fii moo créé le problème bi yëpp. non j'ai pas compris comprendre ma. Boubacar dafay ñëw à mon insu dafay ñëw sa te du ma fi fekk dafay ñëw sama ginnaaw. dafay ñëw te du la fi fekk. dama génnoon dem kër Cheikh Abdou Gàcce ma ñëw tombe gis ñam ñaar ñuy waxtaan bay dem ba toll foo xamante ne bi niveau boo xamante ne bi man dama tiit sax bi ma dugg see ci affaire de Boubacar ak sama yaay li ma jot a dégg daal mooy que ne tàmmay nee na ko carrément Boubacar dafa nopp sama yaay te Boubacar day ñëw di seet si sama yaay fii. yow yaa ci teg sa bët yow Boubacar mus na fi ñëw fekkuma fi fekk la fi yow Boubacar ñëw na fi ba tàyyi te du la fekk day ñëw du la fekk sama yaay lay seet si seet si la de sama yaay lay seet si mais lu tax yow mosoo ma wax loolu yow léegi da leen fekk ci situation boo xam ne genre jàppante quoi genre xuloo quoi moom ak taamay fii laa leen fekk ñoom ñaar ñu jàppante bay xuloo ba sama yaay di yëkkati baat taamay génn dem non non attends Boubacar mom Boubacar man layap quoi Boubacar day dugg sama kër à mon insu yoguma tinuma yo informé wuma ma sa yaay informé wuma mo melni ben ni benn ci kër gi quoi mais yow sa yaay joto for dara lo xamanteni jugé na ci mom comme quoi dafa wéti deug la wala du deug lan la relation Boubacar sa yaay rek ni comme ça ni xess sama ko ah sama yaay li ma jot a sama yaay li ma jot a ci wax nee na nee na Tamay nee na affaire de diggante moom ak Tamay nee na la doon arrangé te man li ma gis ba gis ko mooy que ne sama yaay Boubacar dafa nopp sama yaay. Boubacar dafa nopp sa yaay léegi sa yaay nag léegi. ah sama yaay ah man ni ma déggee ci ay biir waxam. Hmm. moom soriwu ci waaye ni ma déggee ci ay biir waxam wax ji moom dëpp na kàtt gi. ok d'accord man sa yaay moo ma ci gën a intéressé parce que Boubacar je vais régler son compte. di ngeen a yàgg war ngeen a dépassé seen yi ngeen di def comme man mi di gan maa ko xam e sama yow damaa bëgg nag tulaay nga bàyyi li ngay def di ñëw kër ga boo ma soxlaa mais di ma woo nii ma ñëw nii sax noonu laaj ci tiitee ndax dama yoot ñëw ndax bëgguma ñu ma ñu gis ma mel ni damay jaxase booba tey nag maa ngi wax dama bëgg nga nekk si jaam yow ak Aïda yaa ngi may dégg lii nag bëgguma ko del ñëw ci kër ga bul ma woowati ay bopp koñ gis nga yow li ngay wax di yëpp man waxuma ko ah lan moo tax ma woo la fii nii waaw gis nga lii waaw dama doon dama lemal sama papa ay yére di ko ranger ci armoire fa lii nekk ci biir xàmme naa ko bu baax ay da lii la ma doon proposé pour ànd ak man moo tax ma woo la pour jël ci affaire xarit lay indi yooyu man soxloo ma tissu bi wax naa ko keroog sax tissu bi ma soxloo ma dama bëgg na tissu bi nga jël ko nga delloo ko ko yàlla jërëjëf yow nag gis naa ko def ndax ku wàcc si ànd ànd boo yëg fekk fa borom Aïda maa ngi doon doomu sama papa ak ya Aïda yaay Aïda bokku ndey ak baay da jël wala jël ay tiiseem da la ko indi ba nga war ko ko délo tiisi bi delsi na ci borom oh Bob ba tey mënumaa nelaw ndax tiisi bi maa ko don xol gisuma ko nga indil ma ba ci samay loxo def nga def nga lila war kontan na ci yow bit na ci yow ndax jot na ci li lolé ñu naan li du mur la ma ngi ni di ma ko ñaw sol ko gis nak yene neen tisi bi nga sol ko wala ayda sol ko lo sama yon nek ci yobante nak la lay jox soo demee ngeen ayda comme defet da beug si man gis parce que Moussa Ndiaye dinañ ko tecc ci koso bi man may dox te nga liko ko bi toj na nak tisi bi ñëwaat na si moom loolu yaag Moussa Ndiaye la sama yon nek ci xama lan moma intéressé tisi bi te tisi bi ñew na ci man demal nga tok yak sa yaay yeena xam ligeyate mais chérie mais après tout mon jàpp ma ni loolu warna tay warna na suñu voyage quand même ak élan bi ñu de toutes les façons Boubacar je vais lui régler son compte sa yaay moy suma problème. ah sama yaay jaaxal na ma de andi sama yaay am sama yaay am sama yaay andi sama yaay rek rek ngay dégg. baax eggali yow lii mooy sa métier toog di yàq sa ndey yaa ko yàq xam nga lu ma neex ci wax ji dangaa am ndey joo xam ne daa ma tudd ma tabaski te lépp mën naa koo àngu man kenn duma xeexal yi nga bii combat maa koy xeexal sama bopp bëgguma ci benn wallu wax nag balaa neex konte danga maa yab miin ma nga bàyyi ba ma dem ngay wax sama ginnaaw génnuma woon maa ngi taxaw fii di leen dégg lépp loo wax dégg naa ko waaye boo amoon jom yow dinga génn samay biir man lu ma neex laay def kenn mënu ci man dara hmm. kenn man magum jëmm laa kenn mënul ci man dara mais goro kii waxul dara ma doon tegal benn situation man je savais pas bu bakar dafay ñëw ci kër gi te duma fekk te yow waxuma ko moom waxuma ko kenn mësuma ko wax eh yow awma yow ah déedéet. goro man ngay waxal de. waaw yow damaa defoon nga kilifa te motoo li nga doon ba ma xamee ne yow fi ma la teg yow doo yow waruma laa teg foofu laa la yëkkati ndànk teg la sànni la fële li nga sa ñàkk fayda googu man bu ma ci boole te gis nga yow Boubacar moo la gën gën li taq ci yow Boubacar baax gi mu baax. ak gën gi mu la gënee weesuwul nga tukki jox ko sa xaalis mu tabaxal la kër gu mel ne jàmm nga ne faax toog ci tey. mais da xam ñaata laa ko jox. loolu li xam nga luñ seex man moo ko jox sa mu lekk ko. yow man ngay dikk nii yow. waaw. waaw yow man ngay dikkee nii la soo toogee fii jàkkaarloog sa seytaane bi xanaa tey laa baadoo la. waaw tey nga dara nekku si. situation la expliqué mais li gën a grave sax mooy yow man yow musoo ma wax Boubacar dafiy ñëw te yow war nga ma koo mën a wax. Eh, yow yaa ma jur. lu sa yoon ci ku fi ñëw ku fi dul ñëw lijjanti sa problème dégg nga li ma la wax man bu ma génnee ci yéen dafay yàgg. Hmm. xam nga lu ma ngeen xoolee ma ci kër gi comme ay locataire. jërëjëf li nga may fay yow. waaw nga may waxal. waaw mais malheureusement li nga wax nekkul si man. gis la li nga liggéey dong laa la fay ndax yow baadoo la ka gis nga baaba baaba sa yaay li la may fayee xam nga lu ma la yëgal xamul yéelaa est-ce que dégg nga li ma la wax te na njëkk tey ngay wax ci samay mbir surtout sax ma woon la ginnaaw duma sa moroom est-ce nga li ma la wax. kii sa yaay soof ngeen ma toog maa ngi xaar yow ba samay mbir yow nga lijjanteeti ko loolu rek laay xaar yow xam nga ma bu baax yow. ko def. ah kii bàyyi ko muy wax.

asalaamaaleykum. père sec sec sec yaa ngi ci jàmm. père ana ana maman. maman. Ah. dafa génn. ah dafa génn. waaw dafa génn. laa wax. te naan na ataay ba pare. yow nag am na lu ma la bëggoon a wax. man waaw. dama yow ñëw nga sama kër. ubbi sama frigo fekk sama nécessaire yi nga xam ne dama dem ba épicerie yi jënd ko ne su ma demee julli ji jumaa ba ñëw euh, mën ko jëfandikoo yow naan nga samay jus samay boisson sama frigo bi canette man canette bu ma ci def su ma ñëwee fekk ñu gannaaw ma lekk samay ceeb lekk samay dessert mais lii moom mbaa jàmm la dama ne yow ku ma jaaxal nga sama kër gi lii musu fi am yow ñëpp dàq nañ la ma yërëm la ñeewante la en tant que sama doom mais yow mii euh, koo ne foo nga du ma la topp foo nga jëm dafa soriwul dama bëgg nag lii na dakk sama kër gi euh, sama kër gi à partir d'aujourd'hui nag damaa bëgg nga araamal ko nag loolu laa lay wax nga xam ko bis ni ki tey ah waaw Seck. sëñ na nga def. sant yàlla ça va bien sant yàlla baax a. waaw ana góor ma nga fa. Euh, loolu du samay wax maa ngi jéggalu bu wér nag. waaw ah, lu xew ndax circonstance bi ñu dajee koro kër Boubacar. dëgg la neexuma. Mm-hmm. jéggal nañ la jéggal nañ la. Hmm? jéggal nañ la jéggal nañ la moo tax nag maa ngi yow koro amuñu dialogue waxtaanuñu. Mm-hmm. parce que ba ma fay te bu fa duggé du dina fa am kër te bu fa amé kër du bax wa da ngay tey nga expliquer ma lan mo xaw lan mo xaw li xaw len kat la. Mhm. bakkar gannaaw bu mo goor a nan goor di laaj kayiti kërëm joxugo ko bëgg wëlbeut ku di ñëw ci kër gi guddeeg bëccëg suba ngon ba dëkkandoo yëpp di ko gis mu naan dafay seet Soda Diagne xel nangu na ko. dama né fièvre yépp fièvre sof mo ci gëna bon té yow nak yow romb nga sof nak ba yow sama sama yow sama père nga te man sa sa waay la. man duma sa père. waaw dang may deglu parce que yow père dafa am luñu ñu man ak yow père man dama don sa boy def la père nga doomam ma ma lay réglé say mission sa plainte fi ñew yépp ma la koy distribuer problème bo ma taxaw ci soxlo bo am wax mako ma doxal la say mission mais nan la mëna ñëwé père tay jii ni ma ñëw sa kër ni nga may wax ay waxu détail lan luma luma def lan la lu xew. mais dang ma maa def jëf ju ñaaw may wax père père nag ah, damaa yaakaar ne nag soo ko bëggee. Euh, da ngay seeti ñiy war a jaay ay dàll wala yu mel noonu lenn rek laa lay xamal que ça soit la dernière fois sama kër gi daal à partir de jour bi tey jii nang ko araamal fii bu fi ñëwati ndax yow mii xawma booy ASC lañ lay wax ASC boo xam ne yow coupe sax foofu ba la ñu ñu ñu ñu gañe la mosumaa dégg euh, seen ASC bi gañe nañu coupe def nañ lii def nañ laa dama ne lii daal na dakk yow doo yow yow booy ASC yow ASC tànn nga yow waaye yow doo booy ASC yow nag te it li ngay def yépp dégg naa ko boo fi ñëwee nag di yaru yarulu te dama ne yaru nag bokkul ak yeeru yow yeeru kat nga yow yaru dungu ko waaw sedd bu demee naka nan da koy doxaat ah bon mel ni kër gi moom béyub ndëpp la jur amul bëgg mu ay tankam nako dakal ci kër gi ci num gëna gaawé ndax lu ko moy ah na dem kasso dé dédét jaru ko lu egg fofu jaru ko déglu rek jaru ko kalma rek xam nga li nga wax dëgg la kérok loolu bañu dajé dajee kërëm gis na la nga gën ak mer bu metti mais xamona yag yag dañ daje nga té dëgg ma expliquer man mi ba nga démé ba ma ci kër gi di waxtaan ak mom carrément koy wax ba ko waxe ba na ma carrément man toto sama xarit yaa góor yëpp dootu leen sama xarit lii la ma wax kon kooku xam nga ne ay waxam waxuma ko li nga wax nag ci diggante moom ak ak Soda. moom wax na la lii. waxuma ko waxuma ko de waxuma ko wante nag dina la xamal benn affaire waxuma ko wante dinañ ko régler man ak góor dinaa ci waxtaan ak góor a xaw ma nag góor a na ko xaw ma yëg ko mais dinaa ci waxtaan ak moom. Moussa Ndiaye góor ay problème doy na ko sëkk. ndax kayitu këram googu ma koy topp te fayu ko jox ko ko. na gérer lool mais à propos ki ma bokkal ndey ak baay muy sama mag du ma xool ab ab kolosaar bu jóge ci àll ba ñëw ci kër gi naan da koy doxaan déglu ma wax la. li ma dalal dalal dalal. Moussa Ndiaye. dalal Moussa Ndiaye yow li nga li bari. gis nga Boubacar du nit ku baax bu nit ku baax yor jabaram jii ci kër gi may jàllo mais xoolal may jàll ñu ko torturé. te sama doom ji di maman. limuy ñew di mako wax yépp ndekete yo ci yow la joggé parce que mama mako yar may bayam tudde ko sama yaay bëgg ko lol te mama mi jikko yi ma gis ci mom yar na ko ci kër gi waaye mbedd mi nak ndekete kenn ku ne war ngay ñaan yalla yalla musul ci ñu melni seeni dom bu ñu gëné jëg ñu melni yow ah, papa man lan la wara wax man mama ba nga toll ci état bi nga toll ni mama li ko xam ko xam mais lan la ko wax lan la di ko wax ay mbiru Soda Diagne. lu ne nga maman ni mu ma waxee lii. non non père attends père attends père yow li nga wax kan moo la ko wax man dem di la waxee Soda Diagne quoi. yow yaa ko wax sama doom mama. mu ñëw ci kër gi di wax ak man ay façon wax yoo xam musuma gis baay doom ju koy wax ak baayam. non père attends père xam nga sama père nga dama la bëgg. yow xam nga fi ma toll ci yow kon donc du ma jël ay wax yu ñaaw. dama ne yow bëggoo ma yow su may wut noon yow yaay sama première noon yow maa ngi ñaan façon yu mel ni yow yal na ma yàlla musal ci ñoom dama ne waaye à partir de jour yu daal dama ne sama kër na nga génn génn ko ca génnal ca biti bëggatuma laa gis. waaw bëggatuma laa gis laa la wax waaye sortee gaawal waaye génnal sama kër yow bëggatuma laa gis. yow gis la ak gis sama boutique laa yemale boo jógee dëngal sa los yu mel ni inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun façon mel ni ñu mel exemple rwaay mel ni ñoo yàq dëkk bi al na ma yàlla musal ci ñu mel ni waaye inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun li nga wax yëpp dëgg la Seck li nga wax yëpp dëgg la xam nga man mii di wax ak yow ump la woon ne man kenn ëpp may problème maa ngi ci situation xam yu doy waar wante yàlla baax na léegi ñu egg ci procès bi li ma lay wax rek mooy mbiru Boubacar moom ñun sax la gën a jaaxal wante nag xarit la mu nangu mu bañ xarit la ñun dañ koy jàppee xarit ba àddina tukki lii nga ma wax nii naqari na ma ba ci kanam yàlla ndax waroon naa bu def yooyu waroon naa set geneen kër gu dul googu waroon naa set keneen ku dul goro góor a wante nag dinaa ci waxtaan ak góor a xaw ma ndax yëg nga ko yëg na ko xaw ma ndax yëg mais dinaa ci waxtaan ak moom te incha allahu rabi

Boubacar de boko ko gisatee ci kër gi nañ ñu teqali c'est fekk Boubacar ñun la gën a jaaxal wax la ko ñun ñi ay xaritam ñun la gën a jaaxal Boubacar dafa changé nekk beneen nit beneen nit yow naka nga mën a comprendre Seck Boubacar jàkkaarloog man may wax ak moom samay dëgg mu jàkkaarloog naan ma doo ma doo sama xarit góor du sama xarit. dafa bew loolu mën a dafa bew. bewam googu nag na jaay keneen waaye kër ga moom na fa dakkal tànkam xaalis luqatuwul suñu bët. loolu moo tax man la. kay loolu tax man la nañ ànd ak ñun ñëpp dal. man dinaa waxtaan ak góor bu soobee la mën a góor bu ñu waxtaanee ba paré dañ trouver solution bi kër googu mu ñëw di fa set ci sora dina ko dakkal ak ci ni ma ci na man maa ko wax na leer de maa ko wax maa ko wax gëm ma rek di yow luma ma la ñaan nak moy dalal bu fa ñëwee lo dégg man la mer nonu borom la señ bi dalal rek dañ trouver solution daw boy bëgg dé dina dalal rek man day nopp do Diagne ah, triande fu ne mu dugg fa ci loraju ne mu def ko fi nan di ñew ci kër di nopp so do du duma ko sétan la la wax d'accord man dalal rek ah, dalal damay bañ nga def lo xam da koy rëccu waaw dalal rek mm, na bay kër ga dina ko bay na bàyyi kër ga su ma la waxee rek gëmmal dina ko bàyyi bu soba yalla na bàyyi kër ga dina ko bàyyi nan raante ma ak moom na bàyyi kër ga jaru ko na ko bàyyi rek baax na ndjay Ndiaye jërëjëf maa na bàyyi kër ga ah, dina ko bàyyi dina ko bàyyi baax na bakkar Boubacar Boubacar mom ni rek quoi li mel li lañ wax sama waji sama waaj ndama ngi ci gàcce ngi ci gàcce rek la ñu teg waaj gàcce kese Bye. Ah.